here ah suma phone bi mu ngi nii de ah, yow kooku sax duma tudda turam ki ma wax nii yow tamit xam nga ni kii soo gisee kii di ma saaga man nga xam ne internet la su dul loolu kii fu ma eewoo eewoo fa kooku ngay tudda nii duma sax tudda turam nga ne xaw ma kan kan kooku duma ko tudda fi ma eewoo eewoo fa kii fu maa ñawloo sax ñawloowu fa su ma waree ñëw toog ne kii lay tontu yéen tamit nit ñi mere ma du leen tontu ne si jam yaa ngi fii amul lu ma taggut si àddina te musta am accès si man am na benn dee boo xam ne mu ne foog mu ñëw suma kër ma bañ ma ne ko baalal ma rek dama busy mu forcé forcé forcé ñëw toog suma boor nataaloo ma ni siya i siya ma foon mu doog mu ñëw nataaloo man fanaa seet lu mu bind sa bim nataaloo man I think I have it man boo koy safu ñoo ñawloo mënumaa wax ak yooyu kooku wallahi fu ñuy ñawloo sa bokkut you know Adama Seet bi mu ñëwee ba ñëw forcé forcé forcé di mel ni kuy rey boppam su ñëwoon gis ma ma Seet lan la bindoon sax bind bi mu fi de ooyoo dem na sax nga téléphone yi moom yëpp nga dee am bii nii mu ne one of them mu ne my love for her waaw There we go. Gallo is with the Gambian queen. I heart you plenty. Sweetie, enjoy. mu ma taga nii de di ma taga taga yu toj léegi fii mu tagaati ma hey hey abal leen ma facebook bi is uh, my Keba's birthday boss lady kenn du yow di lady with the golden heart cum acca dem leen rek on this day. May you get immense prosperity. May your luck be high and shining all day. Uh, this is all I wish for you I'll be, uh, on your big day. Gambia Lafatu Kamara, we love you. Enjoy your day. Nko. Eat cake. I love you. <laughs> Kuma saga, kingen de da saga, mo matagani. I hurt you plenty. <laughs> Kamu buban sai Mungkin mun ya ban deh. ni Hmm? Di mana kita semua ta ga zabe accept tag, kita faham kontan ya pada di liga semua semua semua dua domi sen papa fala lagi. lo hamne semua domi mi sini pada lan boka Cari gay kai go paradise dua domi sen papa fa kalau ka haruna drame jur nyari dua domi Nggak lagi fufu di saga do ya xaaroo Omar rek lulusnya loolu sa boo may saaga kay bàyyil génnal ci liggéeykaay bi nga dem feneen waaye xam nga rek mooy loolu daal am na ñu bari ñu ne ma koolal na may pour lan yéen pour lan yéen tamit koo xam ne boo bokkuñ dara yow sa yaram bi ku ko xool bëgg a wëccu kooku yaramam bi sa soo ko xoolee sa xel bi tey yéen tamit dinaa génne ne kooku lay waxal ah kon nag wax diggaa yàlla nit ñi bàyyi ma nag koo xam ne man xool leen suma skin bi ngeen xool kooku yéen tamit ah ah, ah. bi mu doon ñëw sa dama daw sàngoo lifin moo tax benn nataal bii la am ba tey depuis 2019 for now this photo was 2017 mu ngi nii 2017 benn nataal bii laa ko may 2017 is here since 2017 benn bii so bi ma wish happy birthday 2020 di same nataal la use last message am bi di ma tagga 2020 di same nataal la use suma image sax I don't associate it benn nataal la am ci man moom laa use ba tey di ma tagga ba 2020 try na lu nekk dama laa invite fii man ko ah, ah. musuma dem And like, it's sad. ah mu ngi nii loolu lañ ma dee wàddu ñu ne ma yaa sonal nit ñi ñu ne ma ñiy wax ci media bi yëpp di saaga nit ñi yaa leen dugal media noonu la loolu la de mu ngi nii yéen tamit ku ma tagga ba ko wax lu nekk waxal lu nekk maay Keba you are the big boss you are the only queen and then nga ne ewu eh, suba nga saaga ma ma tontu la <laughs> ma tontu la yéen tamit ah boobu nag kon nag boobu moom mu yomb nag ah ah never if not do am asita e haste you see am yaa mu ngi nii de waaw skin ba mel ni eh, ebe ebe nga wax du ebe sax Tamba Jango suñ ko lifi nii war koo def mbaxal nii Tamba Jango naka leen di waxee loolu ni a buru buru yàlla ka kenn ñaamaale skin lañ bugga ngay woo Fatou Camara Fatou Camara si jeeg Fatou ba tey bàyyiwuloo every day nga dugg sa internet faatu Fatou faatu Fatou këram gi wóor na ne faatu raw na ndax ci raw yu njëkka ya doo ko musa dab yow nit ñoo xam ne pour ñu am sa tuuti boos dañu am pour ñoo jooy ci media yi di indi seen yëfi sëy yi man musuma def yooyu si internet te maa ngi ni li ma am ci nombas am naa ko waaye yow pour nit ñi accept la sax da nga nekkoon di jooy di forcer sa bopp si ku nekk message yi su ma duggee fële moom na la foofu tudde sax euh, euh, beneen bi ngeen waaru message ja ah boobu tamit amul lu ma tagut yëpp a ngi fii su ma nekkoon nabu boos nabu prof nabu keneen ki nu mu tudde nabu nabu bobu nun seka senegal num tira nabu porof su ma nekkoon nabu porof fii wàcca waaye xam ngeen man dafa am leena lu tax i do not have that privilege bu nit ñi am privilege boobu nga xam ne dangay eewu rek ne harama gene li ma wone i don't have the privilege wallahi because if i do it i deal with a lot of people ñoo xam they should trust me and trust my phone so bu ma digene di génnee di di nabu dash ya wax dëgg nabu porof legi <laughs> bu gona tok di gene lu neka du bax nit ñi duñ ma olu xam nga motax man dama di nopi rek ma melni ni ku xamut waye lima xam ak bari suma don gene suma don gene du bax de suma don gene du bax yo nga ngeen jëriñoo lu suma doom yi ngay fu suma papi doom yi boo paree nga saaga ma nga pare nga xëy nga liggéey fa sarax la teraay nga ba soona associé te man ma bañ foo ñëw ma bañ kool nga ma ba soona may la aa invite nga ma programme may la aa dafa metti nag tam yooyu def dee metti ci xol yooyu la rek la is very sad I feel it danga man moo tax duma dee mer because most of these people tamit you know su ñu association bi dañ dee mer day mer tagay de yeen gis ngeen ko tagay ñu ngi fi tagay yang fi des telephone bi taga ma be ari man kay jam man tara kala kana fu calm down mi diya molla mbe ka ci Allah mhm no compromise differences that I will not do I am telling you ba palal ngeen sen camera yalla ndilal ndilaal recording You know, people are not good. Uh, some are smiling at you, and yeah, I know. But then, do they ever see that downfall? They don't. Because xam nga lu xew alaka moo nga nii wala joo yàlla xol laa fay ku def na fi ba fi jeex na su rek is good loolu la you know nene li ci des amul solo mu ne lan mhm. positive jealousy moom mu ne de say lan you go out with small boys ah xaste la rek xanaa déggule lu ñoo wax ñu ne xaste ñaambi bu tooy la fu la neex nga koy dog fu la neex nga koy dog xaste la rek loolu dara du dara su nit meree lu ne la lay waxal xam nga ñaami bu tooy booy ebesi bu la neexee dog sa cat bi soo neexee dog si digga bi soo neexee nga dogee ko ci bopp bi fu la neex nga dog ko xaste noonu la waaw ñu ngee seetaan ñii fu ma dugga ñu dugga fa ñii maa ñii man la ñuy topp dañuy weddi rek di wax wax ju bari ñoom ñëpp ñu ngi sa biir palanteer ba di seetaan waaye xam nañ ne ah mu I need to be strong like you because I used to take everything personal bi nga xam nga tamit <clears throat> da ngay seet àddina yow ñi lay toppa di la waxal ñoom ku leen waxal ku leen saaga kan moo leen xas kon da nga tekki am na lu nekk ci yow su dara nekkul si yow kenn du la toppa de kenn du la wax dara soo loolu la yooyu moom bu si wóori sax suñ la waxalee rek am na lu tax am na luñ gis moo tax ñuy toppa di ñëw <laughs> Muhammad what are you talking about ah man waxuma de ay borom wang ak bàyyi ma bàyyi ma illaay tax ngeen sax ma wax ku jarul dara ku tekkiwu dara tax ngeen ma wax affaire ku jarul dara ku tekkiwu dara illaay metti na ma sax am na ñoo xam ne du ma leen tudde dama leen ko dee wax ñu ne ma kilee ngee wax kilee ngee wax may leen ñaan yéen tamit ñooñu suma lu netti sax xanaa lii gucci bi sa su ma ko génnee woon mu fayal leen seen rent wala ñu añ si lu netti te fekk ma fu ma toog lu netti rek su ma ko génnee woon jox leen ko nii wala ma génnee jaaru loxo bi ñu ñu ñu lekk si ñaari jaaru loxo yi lu maa wax ak ñooñu lu may wax ak ñoom war na ma si seen téléphone yu melul nii dama <laughs> may leen bii mënuma koo use <laughs> gis ngeen li métti gaay ah ak yii ak sa window ba <laughs> only that so window window babies ma yow kii yaa dama yow <laughs> bloc la ramhas <laughs> ramhas doo ma bàyyi li ngay wax nii ramhas borom wang bi dimbale ma ngir yàlla loolu facebook la woon li xew facebook bàyyi leen ko facebook dégg nga li xew facebook bàyyi ko fa xam nga lu tax su ma yaay moo nekk Facebook billaahi wallaay tallaay fa nekku toon <laughs> billaay kenn du ma yab su ma leen ko waxee góom leen ma suma yaay bu nekku nekkutoon foofu two days ngeen maamee two days mun naa xeexa ñetti bataillon two days yëpp jeex ku nekk dem sa yoon waaye suma yaay a fa nekk ma am nit yi nag àddina bi fi nekk ñu may follow yow tamit nag yaa may laaj na suma ring bi or la yow tamit nag yow tamit nag tamit tamit tamit naka laay takkee ring bu nekkul or tamit ah yow tamit nag ma wàccee nag <laughs> waaw or la soo suma yaay moo fa nekka suma yaay moo nekka foofu def dee métti man xam nga ñoom respect guñ kenn moo tax ñuy toog di wax lu leen neex man am na yoon ne su ma ko dee binda dama dee génnee suma yaay xam nga biñ dee wax ne everyone except this person dama ko dee génnee yi maa binda fan yee dama ko génnee tax su nekkutoon loolu su fa nekkutoon yéen tamit man yéen tamit nit ñu tekkiwu dara yi nga xam ne seen nelaw doyut mënuñoo afoo dara amuñ dara man ñooñu dañ ma war a yem mënuñ waruñ maa yem waaye rek xam nga doo mën a wax foog nga noppi te nag waxeewu ma ko te ñoo xam ne amuñ du noonu laa ko waxee waaye xam nga ku tekkiwu dara mu xaste nag foog ñu xas ko ngeen jégal ma so su ma waxee nekkul ne dama feel dama feel proud or something is not like that waaye ku tekkiwul dara bu xastee ñu wax ko boppam loolu la waaye waaye FT aw oh, FT aw oh ma waaye yéen waaye yéen yéen foo leen laa ilaaha illallaah a seytaane yéen foo leen gisee lii allah akbar yéen foo leen gisee di ngeen di wax a garaaw <laughs> tey laa tiit bàyyi leen ma suma yaay mun ci internet bi laa yenn saa yi dama di bugga faa to give them your phone ñii du ñii ñii duñ use phone ñu ngi ñu ngi foofu di wër si office rek léegi-léeg ma dem ci office yi ñii di ma fekka leen ñu ngaa wër si office rek ñii bàyyi leen nii billaay wallaay tallaay boo gisee nit ñu xalaku ñaar maire boobu noonu nga xam ne sàccakat la maire sàccakat googu dëkk Atlanta soo gisee kooku di ma saaga wallaay suma yaaya nekk Facebook billaay wallaay tallaay nga xam ne jabari Henry Gomez daf ko jox xaalis pour mu yóbbul ko mu ne xaalis ba réer na beneen jànqa jox ko xaalisam démb la ma kooku kool mu ne xaalis ba na ku ko jox xaalis pour mu yóbbul la dafaa suma passeport bi xaalis yëpp lañ sàcca mu tëdda si hmm. yéen ñaanal leen suma yaay mi nekk ci internet bi mairie sàcckat bi nga xam ne pyramid scheme bi sàcc na fa sax eh, yenn bu ma am nit ñi ñoo ma dee wax rek ne bul dem ti lëb doole ma bàyyi ma xuloo yéen tamit ngir yàlla baalal leen ma ma def benn two days boo xam ne yabaate bi yépp génna caa nit ñi tam dañ ma dee sonal am na ñu bind naan ma faatu promise us mu ngi nii yëpp si suma téléphone bi promise us you will not talk again you know promise us nii nii nii la ne nit yi ñoo ma sonal ku nekk ay ambassadeur ay kilifa ay ku nekk ñu ñaan ma bu nekkutoon loolu sàccakat boobu ni ko doon kooku moom ak moom rek dafaa jeex dama bëgg ñu may ma ak ku nekk one hour loolu rek laa bëgg ku nekk one hour hmm. And like Lolumota Namumeti, I've been quiet for a long time, taking it in, taking it in, taking it in. And then some buge warek, you never know, hamga salige bi, you sa page bin faneka, you know you're global, don't talk in tamit. You gotta understand I'm human too. And then nitla, sometimes I want to talk, vent, mawah. <laughs> billahi dole ma bala ma binda kon facebook so ko bindee gars yi dañoo ñëwati suma nit ñi dañoo ñëwati xoola tey sax li ma binde bi waa ah, bul binda bul binda fatu ya. ma promise dole ma bàyyi ma wax ne mairie sàccakat bi taatam yu tilim yi ki nga xam ne ba sa jikar ba ñëwu dole ma bàyyi ma wax ah no yéen tamit yéen ni ngeen ma dee def feyawut feyawut ñi tax ma de ñoom ñoo tax loolu lañ dé wax hmm. nak gatam bi seetaan ki ma wax né mu ngi seetaan nak gatam bi la wax affaire la mère bu menopause yo taluloo dara lu jaxase nit ñi ci facebook bi dafa am sens way ma ngi dem atlanta elik inshallah ma maa dem elik na ca kat bi ñu rek taxaw suma kanam xaaral bu mo tay la wax sax ba mu taxaw suma kanam police ngeen ma dégg suba <laughs> yéen na ngeen di toog fii ngeen dégg police ñi nga xamuñ ma ñii dañ foog ne xam man internet bi because of li sonal mooy ñoom liñ mun a def man munuma koo def comme li ma gars yi dee wax yu a global nit ñi ma follow dafa bari suma page bi wallahi am na fa ay force li di am na fa ñi nga xam ne eh, you know ñuy liggéey government senior government official yeneen dikka waxuma Gambie rek de yeneen dikka soo na yu bari yoo xam ne duma ko dee mun a def suma page bi man dama war a ibbi beneen page boo xam ne dama faa tudda Fatou nga xam ne boobu nit ñu bari duñ ma follow suma nit ñi nekk fële ñëpp duñ ma follow su ma amee loolu billahi wallahi tallahi kon dina neex kaaribe jiibeero la kaaribe jiibeero alaa bee samba aleta bee fo ako tenninte ninte ninte ni aje alabe atula tula je mbuka fen jama na facebook mool men kam folo walla atinna de anin mbamaɓe jee wayi ni wote non ni wote non alkal mati alka fonte nden ɓe kela ñaadi ɗen taga faale en tela alkaranti alte sonna de but majority of all the people talking is because of man ma len inspire wala jangal len ngir ñun bi ñuy wax ken waxut bi wax ken waxut you tell call name. I am Fatu Kamaranak. Calling your name, Rek, I'm doing you a favor. You, how do you miss that? How did you miss that? Let me go now on Facebook. You me wama takalanga honyata ni nyola topa. I cannot mention everybody's name. It's, it's not bahut. You see, ba amna luma don binda turla binda because man luma binda ninyi len ko saji topala. Yalla moko def. So munu ma tudde ñep You ragal yow tamit. na so mohe ragal nak yo sa boppa xam nga ne waxuloo li nga wax nonu du nonu de ah yo tamit man ragal <laughs> wae tour gi sa suma ko waxee bros lay maye you know lola la loolu motax tax moo tax ko moy man dina kan lay ragal fi yen feeru mo suma billi ne waagino ma wax moo tax duma tuutal benn turi kenn di la may bës waaye xool leen ñiy wax ñu tilim ñooñu tekki wuñ dara keneen ka nekk Angleterre moom soo ko gisee sax she doesn't even look well she looks like she has something eating her up For mel ne favor. how can you fight with those people jarul sax suma téléphone bi di def noise you know, the mokok. Something is eating her up. You talulo dara bugene sabutinga menli lifin yangi menli kubo bulaka. Yangi just say you don't even have time to go take care of your husband. Nga to spray yu neck, perfume yu neex, to def scented candle You know, I'm happy, nga kontan. You have a man but you are fighting on Facebook. You tamit. People like that I should talk to them. I should <laughs> I should respond to them. I yentamin loolu buma ko defee xanaa ngeen war ma bàyyi nak yalla tere nga say sa you are not enjoying yang fatu kamara fatu kamara par par fatu kamara fatu kamara fatu kamara <laughs> I mean his obsession his obsession jek une ne jek sen moromi jek ngeen amé turam nelawulen almon alman almon alman faatu Camara faatu Camara jéeg fàcc yéen nga ngi war a dem soppi ni diamond soppi ni gold defar seen boppa bopp régler seen kawar yi toppatoo seen yaram bi defar seen skin bi seen yaram bi ku ko laal mu def nii xoola ku ko laal mu ratax lii ngeen war a tal ngeen nekk seen kër yu baax am seen affaire yu baax di ko neighborhood yoo xam ne yu correct yu cher. waaye faatu kamara faatu kamara faatu kamara faatu kamara atata janne ay ñine sang ay ñine sang atante ami manka ha man man xawma yen de al kontonta maalo al simantal maalo al yaɓe dame maalo al kamen dum maalo ndemal to lon fan maalo ko lijante ale mbula alital fongo topato ni momoje al kono be sunkandin al balol be tiñarin al juwo o yelo ngamar ni la ñuy def boobu KMC drop fële laa nekka <laughs> dump side maa côté dump side al sabari alal fo nga toppatoo aliente bulan na life la alte kela nteti ndete kela al tolti nte kela no kilinti falsi song ali yakata sanji jelu faatu kama ka gangop al gaŋopta al gaŋopta al gaŋopta al gaŋopta al batata al bukatano dulato na al gaŋopta tus ale batu kar kilin kar fula ale murnan koten ale gaŋop koten ale murna al kensaŋo ita ale murnan koten al kensaŋo ita ali daha ali alfaŋo pato mbalo jibe a fele to nyale filta fanaŋ bi jele bari nte baluwo fele ala jibe altol ta jibe hana le filta yusa be ka futo cere yeb cere alal fonga pato ali alla futu kol pato ali al balo topato ali al dingol topato ali fenyi mal sang nalbe tamal ali ali jante ali dum business class ye ko do bonda ka diyalde e domorol dila domor korekrimo yela cranberry juice ye yela juice kendol ming. nintata office or office tonin komɓen fa introduce like ka foñe no no no no no you know fatu no we know you already build that kind of thing bari sonka life fatu kamara keta ten haala so keta ten a fon keta ten a keta ten a keta tenne yew ɗinge ma yablide en kaltente domola sunkarole wulduta sunkaro dallum follow first day of ramadan kumaleka lekka ma sa affair bond. ah business class de one way sa three thousand four thousand dollar ngaa fay one way noppalu leen noppalu leen Fatou I told you I cannot be here di woote ñu nit ñu toju li tekkiwu dara ñoo xam ne su doon internet bi dinañ dunde ñun ñe bañ dee duñ xamante namanke ɗo internet o te ñin tol si balu foye faa nte ñinte e lon nafa waye internet ba ñow ay eh, moɓe natin be ka ñolon be ka ñoje ni wonte fana hani kuñu xool sa xool ñeena di nga xam ne ni kon duñ xamante mu ne daya jalos waaye di nga jalos waaye jalos tam dafa am fu muy em waaye jealous every day you, man i have taken over their lives nte kafu fo ala bere ko nal pare tale ta be sata alla gurbol kono nal pare tale nal ben tar la jan altol dol nyewun talale wannan bukal to fo nyewun talale so hanal tole mun fon tal tol to fala sinte nyewun tal tol lale wannan hani bilal le ko be kata ka kata nan buka son wala ya tin because ne trust ngalo nal man beti alkan kanale pour bus nal pare tale ta wannan buka son Why there? I think it's about time I focus on the life come because they are too small and them. You will not make me change my ways. You will not make me change anything in what I'm doing. And dunde, ah, ala lebi jande ngal damba kele de. To yale mendi ata ala ya kawale ke bari stepo men ben tema jam fatalde. So ante stepo men ben teni dol tema men jam fatante kawale trying ka bridge bari mbuke kele. ñiŋ pare tan kontol le mandinkoolu be ñoo kuŋo tayi la mbe ñoo tiña la be ñoo domo la keddoolu bi janni fulol bi janne manjaakoolu bi janne surwaalu bi janne comme bee be facebook wolu sonkata min toole wole ñoo muta min toole wol bee bee la haajoo topatoo kan tolu be ñoonooma doroŋ na artisoolu be keloo la na facebook laalu be keloo la na journalistoolu be keloo la na dookulaalu be keloo la officeolu kono na looyalu be ñoo la na moolu bee be ñoo la be keloo la doroŋ non stop la dron nkontol mandin kol ntol da male be nyin najande internet o be kon kari ba keta tenne nyim fa keta tenne alinga nyim baneng alinga tinya alinga audio bondi alinga tenkereng alinga fenke tendro be kany mako wax ta domandi ko forcé e fanga o jindi ñono madrong, dron ñono ma, me ño kelen dila me ño banen na me ño record la ño la audio mba bondila mi ta do la juken sango bondila ñim ma keta tenne ñi nit ñi fama mang fenketeng ñi mañ korda sang ñi mang korda lo ite ne lo i jibe

yemmo kelen ndi ñawoña alay o kede a metemaki je ita bondinola je ibe faŋole torandi la ye niyo torandi ye bula mari noma ye tora ñiŋ feŋo batuŋa ñiŋ moo halakiriŋo bondina feŋko kono usman sen ni fi yabaate yi duŋe masi dugal ñaka fay dof be buga de everything ale o ke nonsense diyamoti the all tribe mo all tribe it's not true not all tribe are doing the same that's a lie right now is us ndolle nimman fango fon fango e jumala ba fala mole it's a lie is ndolle ndolle be nyonoma me nyo kango kuntula me kango lala molla me fanial fola molma ntol fango lebe okeka mota hani la fola biko ni afo sita wuli afo ya afo ya afo ten na afo ten bayalo nte mo bukan na foto sorin ko man ko ni afo fango ka funtila ngafo yewulu ngafo yewulu ngafo tende so wala bije mota fula ntol dammalle ɓe jembe la nennanɓe bulala ño nomanɓe ño tiñala isa fact na moolu be ñoo la na artisol be ñoo nenna na be kele la na moolu bee kele la ñoo kan duron fo what reason why nin momo beteya tan ko te tambila janga bulawunoma ga wonko fonsi wo boyndi bari moɓe buka boyde ñiite e fon forcé na kelenteya wote samba la dulaato ñimmen ka adama baro baane batuge bondi because ni me fango baane ima ñanna modo baanen na i bama i kata i ka wole folo nen because i ka men nen modol bama la teng wole be fana bama la gene nañ ko fana demna de adama seet ko wala li ma nge wax man diyamo fango bam folo ibe ibe banen dirole be mo adama baro ko ka wala bane ko ku tekki na di adama bara wo baye mansale wulude ite fele ite bamaye la wulu nkoye fele banendirola internet o kono adama bara haynan sirin state house wo baye mansale wulu fonsi son fonsi son nyoma de mbe sonna ñole ma ta adama bama ikawo men nenten juma woye mansale wulu mansaye wala wulu ite ba woye la wulu ite fele sirin internet o kono ɓe la. It's very sad ata haynan sirin state house na lafta feŋo feŋ doma la na ko lafta hani kamel na ko kamel sayin sayin te sita ye kamel subo diya la hana kon koku tekina. ha amin eh, nañin jiko nimmañin mbula he ada sila tugañin fana blok sa on kake baba jala kuwalati ni min nata in non ngi bondi ako job sikante nin job mala nte be job kela muneti nte be fan sundo kola yala ite ma aim le soto ni ye aim soto nun ite keto <laughs> mune window window babies waaw loolu de la def de ñoo ne di saaga fii ku fi saaga ma génnee la fi mais nen diroo ki jàngee bon di jàng rek la ama <laughs> fekkee la ko waxoo Baba. jaa waaye block button is active saa wooye ñoo commandile ñoo gaada because léegi ñu ngi ba for something te bi ñoo door ma yéen tu xawma wan lañ amoon xawma léegi yéen ñoo commandile kaal nga tal naan te la ngaa beefu nko me also sans la mbamale be facebook ani mon men kam follow je mo kuma balle ben na facebook men ya lawal tolbe balula fale fale ani wolte nyolon wala kam batanti bari nim facebook teno nin tenal tol ben ta dawoda balaatul fon fo naalim si diamu ba fanan ñom tamit da dina wax ak ñom i don't know i don't think it's worth it sax some of those people ñu xamne ni tane di ngee to fo fo bonus you know so ate jar laa la wonna maal fonte man si la albe facebook ka fo ñay ko kari fanan diamu ala lo ale men fe maje bade dol mol people close to me isa fanya ko mero ni ni nyine fo ko mo no rendo we ni nyine fo ko men kam ta uh, eight le bale ko fane ni nyine fo wo do mal wo do mo khala kirindo ko fane ni nyine fo dol bi jen kam moy wala nyaama bar yalo nin ta fundi tan ko nal to le kadiyamo en ko nal to le kadiyamo fanan ah wanga de jalo si mo dok sen holi dafa metti every guddi bëccëg suba ngoon Fatou Camara Fatou Camara Fatou Camara Fatou Camara faatul baañoli man di nga wulu ko man toban alal fo nga toppatoo alien tepula ah aids be wodo la man ka wunta wulu jaaro xac yooyu amoon rebis Banjul si tan bi otumo tanoto ni wo, wo, wo wulol meni rebis soto men be Angleterre ni wala kam wulum comme HIV patient yu nga ne am nga loo wax HIV patient mairie sàccakat bi ah nga am borom skin bu tilim bi tuñ ba mel ni billaay ñi seen tur duma ko tudda Mor Fadam ana Mor Fadam <laughs> Mor moom am naa ko jàpp <laughs> morfadam Mor Fadam moom bore fii toj Mor Fadam mu paree na nu ma dee ba bu ko fen foo Mor Fadam <laughs> walla waaye yaay waay duma naat layr yi neex na ay waay ay hope ne ma amoon liberté bi ma dem si suma page bi wax lii yëpp <laughs> suma Facebook bi kon tey fii taaj den dool too fa ali jaw yaa bula ali jaw yaa bula ali yàlla jusoolu kuu ali te tus noo lante ma first day of weeri koor laa juddu Sunkaro Dallum Folo sila juddu man mun na leen ma coco albe tilaten na albal fongo expose na albe xala kila albe murla koma almal balol fongo tal al nyaada al fangal na albe kaw ku albe burla internet o kono drong al la ban jeek bu baax ngay gis muy tok internet di hulo ali senegal jen jibe na ba na nebol bi jet hani freetown fele mel mel fel lingol mo felligol e kawolle je ɓe tarla siri nimmol ɓe sonkala koɗoɓe diyari ñamolɓe koɗo ñinila way da gen mosa god ay business class ak haalis bu neex ak baak yu baax <laughs> yooyu soo ko mosee beneen level nga dee nekka beneen level yooyu ngeen war a mos ngeen bàyyi toog internet ay jéeg yu tas yi nii tëddee nañ leen ba soona su ngeen paree toog di sonal nit ñi wax ju bari Fatou Camara fenke tey ñu ndooketa tenne ñu ndooketa tenne di xuloo kaa kaa kaa kaa ba kañ yooyu ngeen war a bàyyi nag ngeen lijjanti seen boppa loolu de laa leen gisee de bàyyi xuloo bi ak xiix bi You know? yeah, i am naa as si suba ñu dooleeti ako faatu kamara he da ngaa jàkkali ni màgget de doo da ngaa jàkkali ni ñaame cee ñi dama leen jaaxal léeg rek ngay commencé faatu kamara she said she is this she is that she is this man de gis <laughs> Monday. ma nii happiness rek dala manke uma. Aí então fez uma televital, uma suma pare exico, uma chiquit bi bung sisi bi suma libi, ma ko defar bam bax. Mo pare mos ci chiquit bi parce que nine sa jot na du mëna lek ante ma dawam ko ko tan na de. Alta do ko la ko do ñini. Kene alta do ko la ko do ñini. Ñi ñi groupe kelo nafate wala ngalte mo butela. Alte mo la jang ale feŋ wo feŋ fo jaŋ moo bee ka na lo be faniyaa la wuli a kenseŋ be wala ka kumoolu meŋ bee fo faniyaa bari evidence meŋ bulle meeroo meŋ ye suuñaaro ke niŋ a maari kool saama ŋa dundi laaye fasi la story explain mu fula meŋ bulle a ye la kodoo suuñaa nsi kumandi ŋa ye dundi ba mbaamaa be mo mooyaa ha te aw ma fake profile man oma ma fake profile mm? jang

ami wala ñaama mu ne leen fa atu dama la nopp mu ne block this guy insulting maa ja gisuma ko sax gisuma ko sax nan dog nte naal nte naal to te level kilin naal te sonkanoo la ntaanoo la xani laftaala fantaa kenoo la waaye su dee foroxle la nte la foroxle taal ti de al te fem foonoo la mamem men foonoo non te hañita kelo la bi kon te wan dipen mo kan ndel ko do ndel ka do kum fay tol dol ni te fundi tan ko nal tol ka kebe mol fo be kam faran kam male fa so al benin dia mo men bela mal jabi wannan nata janka fo ni aje mal jabi you are not worth my time never worth my time ma ente jambe siri nkonka juma nyon leji molbe jutula nalefa honestly molbe jutula nalefa ni njente kasi nkonka juma nyon mer fulistri ngon ni dindi mesen din nori ngol men be facebook okay fa molbe kam faran kam fa you know so loolu moo si nekk daal ah. am naa benn saaga nag am naa nag benn saaga loolu dagan na time bi ma fi def yëpp kay su ma amee saaga loolu baax na Nina, moom ñu bloqué nina ñu ne moom du seetaanaat baax na ah mooy kii block the one insulting Ye block nañ ko kii mu ne ko nga ki kii nga kuruwa kii nga e futu baro fana jakalo si wara yalo ninte fana munu mero le tinu wala ntata fo minu posta kai nsi kuruwa kie bare mam futa oto folo mbula dumande mam 50 pounds to folo matu nimbe 55 nsi woke okay number 55 60 mafao ah mu I don't understand why we fight each other jealousy rek ak xol yu bon iñaan angry nit ki di dem nga ne du dem te yow toppa nga be so na o man soy danku ya la katale pour ay la frente a man son Say be siri te ko nendiro ah ida situ nendiro la jeedro wo de o bala ko me kanne ni pa ite be fa ya façon be fulay bala baa laalaw alama sinode wanne to kamur komale doro waw suma de mefi nimbe 55 wala What time o maybe nsi kuroo kii mooy bari sayin kay ah waaw de kumer dal wa wax ko yàlla eh, my husband is obsessed with fatu now I can't blame him Wa in naa si kër gi maneka said nekk seet bi ah arrange ko xam nga yow kon dañoo déggan day demee ñëpp taraay waxee noonu ñii daal maa leen teree nelaw ñun dimita aljusoolu aljusoolu abi kan la dimi laal de ndama den tebi de yëngatu suma yaay sax moo nekk facebook wala nankaar baalal ni wote noonu every ma dugal yu touch loolu la de ni moom albe muñalal duro albe muñalal ñele ala leen duro ali muñe duro ngal na man diya musoo doo yen killaa fo ñaa ko ñu de pour que ete tano aman diya nga lonne nte fongo ya lonne wala ala la ke ali nga song mbe sonnal drong ali nga son drong ñing kelo ta tin nay ta aka la faale fang because ni wote ntela age saya i'm in my late 40s wala hani saya jibe mi ñamen because naatol the more you are hating the more ala ɓe gena korekindila alɓe heetla ala ɓe gena fenkendila sa wo biɓe ɓe window window window window babies <laughs> ali jio mein ali jio window mandi you need it mhm I need you, but I don't know how we can talk. Ah, man de duma de ñëme de waxa ñu nak motax fi duma jël call. I don't talk to a lot of people, but you can text me. Text is best. The best way to reach me is text. You know? window babysitting. <laughs> you are looking gorgeous ni nahulen ma defuma dara defuma makeup defuma dara maa ngi toog rek dama doon toog rek ma pare rek ñëw toog fii melun tabirol la you know déedéet I'm not 40 I'm in my late 40s now I'm not 40 I'm over 40 you know uh, you can text me on if you're on messenger on facebook you can text me on there. You can text me on there. Hello, window, window babies. If you guys want pizza or anything, let me know. I can order for you the window, window babies. Um, if you want it in Gambia, it's late. Luigi's would have dropped it for you. If you want it in America, let me know. If you want it in UK, Folan Kubugarek, I can buy you pizza. Ousmane Sonko mbokki sénégalais yi Lamine Diagne nag Lamine Diagne yooyu tamit mais Lamine Diagne bul déconné Lamine ñun ñu ci wet yeneen wax yow tamit ñaan naa la bàyyi affaire Sonko bi bàyyi affaire sonk bi yow tamit ma ne yéen du yéen du ngeen